gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi shaytaani rajim wa ana axtartuka fastami lima yuuxa innani ana allahu laa ilaha illa ana fa أذني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل أتكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Seexul Xadiim mbooloo mi fi teew maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel te di leen ziare bu baax te di leen massawu itam ci coono yi ngeen jànkuwanteel ngir agsi ci dëkk bi waaye ma leen di jottali nuyoo sëriñ Moustapha Guèye moom sëriñ Mortala Guèye mu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen wax ngantul sous-préfet bi ci teew fii ci cérémonie bi ndax ay tënk-tënk ak ay xat-xat yu ko dab moom ak commandant bi ñoo ànd ak monsieur le Mamadou Kébé Gadiaga di meeru Dingiray di leen sant seen teewaay yëg nañu coono yi ngeen jànkuwanteel baas xam nañu ni mu toll ci ñun donte ñoo bokk dëkk bi donte ñoo bokk bis bi coono yooyu itam yëg nañu diisaay bi ba ñu ngi leen koy massaw tey ñi ngi leen di ñaanal lépp lu ñu amee ci bis bi ci aw yi rek ñu bokk ak yéen duñ nuyu njabootu alaaj Serigne Gueye gi yépp di teg nuyoo boobu ci loxol Serigne mustafa mu wàcceel ma ko ci mboolem njabootu alaaj Serigne Gueye yépp góor ak jigéen taxawaay rafet na dëkk bi ni ngeen ko taxawoo rafet na ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal suñu borom téye leen sàmm leen aar leen musal leen ba li ngeen tàmbali ngeen àggale ko nu kawe seen jot yàlla nañ ci borom dajale ak moom bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi barke Seexul Xaadim kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di dalal ñépp asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi jël kàddu nuyoo ak siyaar yu sell yu màgg yu tedd jëme ko ci sama sëriñ sii ma àndal teew fii di njabootu sëriñ Ibrahima Mbakke xaadimu rasul te sëriñ Cheikh Abdou Mbakke moom sëriñ Dame Abdourahmane Mbacké nekk kon ngir xamle tuuti si histoire sëriñ Ibrahima Mbacké moom day dañuy wax ni doomu sëriñ Touba Xaadimul Rasuul la yaakaar naa loolu dong nag buñ ci yemoon mu doy sëkk présentation ak waxtaan ndax man jàpp ma ni nit am na lu ëpp sëriñ Touba di sa waajur jur la jàpp ma loolu kon loolu dong buñ sa yamoon mu doy sëkk a xam-xam mag daa waxoon ni maha anni ahmadullaha ala nasabi is bi abi bakrin ittasal daa waxoon ni man dey maa ngi sant yàlla ndax defal na ma tawfiixu ma bokk ci askan bu baax ndax abu bakrin mooy sama maam kon la koo ko waxoon loola moo dal njabootu Serigne Touba gi yëpp ku Serigne Touba di sa waajur loolu doy na sëkk Serigne Touba nag yaakaar naa duñ ci taxaw naan mooy kii wala mooy kaa fii moom duñ ko fi xam ne waaye juróom bu jigéen mooy Fatimatu Suxra bintu Mahmudan Haydara Mahmud Haydara moomu bokkoon ci giiru dal xaaj sa Murtani addal xaaj yaakaar naa xam nañ leen bu baax a baax ndax Serigne Touba tudd na leen ci ay téeréem lu baree bari benn si nax ju el xaaj waaye xëy na fii fi senegal moom ñañ ñi gën a miin ci ay mbokkam mooy ñu ne Mahmoud Haydara moomu mbokk la woon si Cheikh Sidiya Baba mi ñu xam ak Serigne Touba di mbokkam mu ko jege kon Mahmoud Haydara mooy waajuru yaayam Fatimatu Soxra waaye soxna ay dara moom mooy waajuru bu jigéenu soxna Fatima ñu ko jur ñoom nag càllal ak sarif lañ koo xam ne fa ni ñu ñu fonk lañ ci xam-xam ak wilaaya ñu nekkoon ay nitu xam-xam nekkoon ay nitu wilaaya moo tax ñoom foofa buñ tuddee sëriñ Ibrahima Mbacke fa ñoom ñu ne Zul Anwar borom leer yi ndax lan ndax ñi ko meññ si wàllu waay juróom wu góor di sëriñ Touba maam jaar nga topp askan woowu nga jël si waay fii si néegu ndeyam daan ne soxna Fatima Soxra sëriñ Mahamoudan Haydara soxna Khadija Haydara nga toppaat ko noonu mu nekkaat maanaam beneen càllale boo xamante ne nii dañuy delloo si la muhammadul busayri yi waxoon sayduna muhammad ne ko wabada lil wujudi minka karimun min karimin abauhu kurama da ko ne bi nga dikkee yow yonent bi lañu am ku baax ku jóge si ku baax koo xam ne ay baayam yépp ak maami yépp ñu baax lañu loolu nag moo dal sëriñ Ibrahima Mbakke xaadimu rasul kon ci wàllu askan ñaar ñooñu si la bàyyi ko ñaari néeg yu baax yooyu fan la ganee àdduna kon bisub altine la feeñ àdduna fandaam tolloo woon nag ñaari fan si weeru safar ba tey loole it di beneen alaaxa si digganteem ak sëriñ Touba mi ko jur ndax bisub altine ba yeneen bee ko moom waaye weeru safar wii nag Sëriñ Tuubaa ko moom kon ñaar ñi ko séq ku ci nekk ak juddug àdduna am am na lu sa feeñ si digganteem ak moom si atum 1330 loola sa la xewe woon sa la gane woon àdduna dëppoo le 22 janvier 1912 bi mu feeñee foofu fandam nekk fa si ndigalul sëriñ bi ak waaye juróom mu jigéen ba toll si war a dal jàng alxuraanul karim sëriñ Tuubaa ni mu ko baaxoo defee si ak njabootam ku si war a dal mu dalal la ba pare kon sëriñ tubaa moo ko dalal loolu ñuy wax ba siin miim bi mu ko dalalee nag jébbalal ko sëriñ Dame Abdourahmane Lo ngir mu jàngal ko alxuraanul karim kon fa sëriñ Dame Abdourahmane fa lay jànge alxuraan ba mokkal ko fa bind fa it kaamilam bu njëkk ànd ak sëriñ Dame Abdourahman Lo indi kaayal bi njaareem si sëriñ Touba mu jëppal ko ko sëriñ bi rafet lu jëf ji ak mbind mu rafet mi ak wowu kaamil bi ñaanal sëriñ Dame Abdourahman Lo yeewe ko téye sëriñ Ibrahima Mbacke téye ko njaareem fa la ko téye maanaam ab nekk fa ak moom séq ak moom yam fa séq ak moom te suñ yoon nekku si ba daal ko fa njàngum xam-xam fa la xam-xam sëriñ bi sëriñ bi soog ko delloo si waat sëriñ Dame Abdourahmane Lo ngir mu wéyal njàngum xam-xamam si téere yu njëkk yi mu continuer njàngam sëriñ Dame Abdourahmane Lo ba ni mu fi jóge dem si sëriñ mët dem bu njaareem mi ñu xam nga xam ne lu bari si njaboot sëriñ bi jaar nañ fa mu dem fa continuer fa am njàngum xam-xamam ba ginnaaw bi waaye juram làqoo sëriñ Touba mu continuer si ndigalu sëriñ Modou Moustapha dem gànnaar àggale ji njàngum xam-xamam kon Mauritanie fa gànnaar fa la àggale njàngum xam-xamam jàng na si ay baydi yu bari waaye ba sa gën a siiw mooy buti limit loola it maa fa xam-xam bu mag mu wax ma ko damaa dem damaa dem buti limit dëkkub Seex Sidiya Baba ka ñuy wax imam Isxaqa sëtu Seex Sidiya Baba la moom mooy jiite si jumaay Cheikh Sidé ji nekk Boutilimit ma gane ko waxtaan ak moom na ko dama doon laaj njabootu Serigne Touba ji kan ak kan ñoo jaar fii Boutilimit mu ne ma sëriñ Modou Moustapha jaar na fi ne ma Serigne Fallou jaar na fi ne ma sëriñ Ibrahima Mbacke jaar na fi ne ma Serigne Saliou Mbacke jaar na fi Serigne Mortada jaar na fi ne ma ñii jaar nañ fii Boutilimit ne ma Serigne Ibrahima Mbacke bi mu dikkee Boutilimit Abdullahi moo ko dalaloon. Abdullahi nag mag yi sëriñ Touba yi xam nañ ko sama waajur nee na ma ku matoon biti la mooy taaru biti bi ba tax nañu bari daan toog si jataayam di ko xool rek ngir taar bi ko suñu borom binde woon waaye ku matoon ay jukkalay jukkay sang jukkay sëriñ jukkay kilifa moom la amee woon sa jamono yooya lu bari xam nañ ko dégg nañ ko ñu bari am na loo xam ne bu ñu ko mosaan soxla duñu dem fenn fa dul kër Sëriñ Ibrahima Mbacke seeti ndax moom la yàlla joxoon teranga ngay adduna ju yaatu jum doon ne si baayam mu koy dikkal comme ab robinet di sotti waaye ni mu koy dikkalee noonu la ko doon joxewaate doon ku tabe sanc Mbacke Bari def fa daara di fa tarbiya sanc daarul xadiim def fa daara di fa tarbiya sama waajur fa la nekkoon muy tomb njëkk bi tomb tombum ñaareel wax ni ku bëgg a mucc da moytu ak tooñ booy tooñ sa borom doo mucc booy tooñ sa morom doo mucc tomb tomb ñetteel ne ku bëgg a dugg àjjana da ngay nangoo jaamu yàlla kon ci gàttal ak tënk ci lu ñu mën a jariñoo ci dunduk suñu Ibrahima Mbàkke ndax 30 minutes moo tuuti fii lañ si taxawlu wasalaamu aleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fi teew ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jaare ci suñu kilifa di suñu jàmbaar ji sëñ na Gueye mii fi tooge tey jataayu Alhaaji Sëriñ Gueye Badar sama borom may ko fan wu gudd ak wér ci sëñ bi nag di Alhaaji Sëriñ Gueye Badar dama am lu ma ci barkeelu tuuti ndax jamono yu ma daan toog jetaay ak moom day am bayit bu muy junj naan yaazal wujjoodi wal baqaay wal ma def ci marsiya ngir sëñ daamloo doonoon ci njaboot gi di taalibeem di jarbaatam moo ma ko bindal mu doon ñaar fukki araf ak ñaar ma tàmbalee ko bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yaa zal wujjoodi wal walxidam wal xidam yaa seexu waaju sopp daam yaa seexu sopp daam sumbam lu wéet wéet fees fa daam ndimbal la baaxoo ci kuy dem biir baadi njaag fi xarnu yi alxuraan di toolu dëggoom fi waa Badar Gueye doy na lëm ahmadul abib maam janaam doon fotofoor fi xar mi zaalika cheikh fadlulaay jikkoom jaa ngi nii filaay ngir ak tabeem géej li laay la doone géej fi xarnu yi ab doxam fi diini laay la ñépp xam fi kii billaay gisal bii masjidul jaame ci yokk leeral xarnu ñaan nga di wasallim ala nabi wasallimi wahdi bihi haajata kulli muslimi waseme njol magga sallim ala badrin jalal tujil xulubi wal xalaal salbil maqamati lxula wayisbe waseme ausu billahi min asheytaan rajim jiital ci cant gi ak nuyoo bi Baye Laat Géey mi nga xam ne mooy xalifab ngéen kàddu gii may yëkka itam maa ngi koy yëkkati ci turu Bagal Caam mi nga xam ni moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp bi doon xalifab dañuy ba nga tey jii ànd ak ay rakkam nag sëriñ Taala Caam Thiès sëriñ Omar Caam mi ngi ci kër gi ak suñu mbokk yi jóge Kawlax Ablaay Caam ma njaay caam ak sëñ xaadim caam ñoom ñëpp ñu ngi toog ci jataay bi ba ci Moustapha Caam kon ñooñu ñëpp maa ngi leen di sant ci seen kàddu rek laay waxee ndax maa ci gën a ñàkk solo waaye dañ ma doyloo rek ni ma naa joxe kàddu yi euh, di leen xamal ni nag euh, fii lañu dëkk juddoo fi yaroo fi màgge fi sunuy maam nekkan fi ak maami alaaj Serigne Gueye mii ay waajuram nekkan fi ak sunuy maam ñuy yëkkateendoo di tegandoo nekk xamuñu woon lu dul lislaam ak lu baax nekkan fi di ko doxal doxalin wu rafet ba sunu borom dogal ñoom it ñu jiituñu yal na leen yàlla xare ajjana ah ñun ñi fi nekkit yal nañ fi yàgg te yàgg doxal liggéey bi ndax liggéey bi kat yaakaar naa bu ñu ñëwoon tey jii fekk nii baas bii mel seen xol dina sedd lool ndax mbooloo mii fi nekk jamono yooyu yaakaar naa mbooloo mu toll nii amu fi woon waaye sunu borom dimbali nanu ba. ah léegi ba badar ku ne gis na ni mel kon yàlla na yokku la nga xam ni moom lañu moom la ñu sumbantam tàmbali ko di ko doxalit ñoom ñii nga xam ne ñoom la fi yàlla teg tey wax dëgg yàlla ñu ngi koy doxal doxalin rafet ànd kook nun bàyyiwuñ ca dara ba da ca def loo xam ne sax kawe na sunu njort ànd ak nun rek ci lépp loo xam ne lu baax lu lu ne lu ñu nekk woonu ca nu dem ànd kook ñoom nañ doon doxee démb daal dafa yokk waaye wàññeekuwut mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara te di leen baalu xaq di siyaare bu baax ci guddi gu tedd gi nga xam ne yàlla baaxe nanu nu teew fi ànd ko sëriñ Seexuna mi nga xam ne moom lañu baaxoo di ko àndal ñu ngi yëkkati sunu nuyoo bu tedd bu la jóge ci sëriñ Baara moom mi nga xam ne yàlla dogal na moom la yor kàddoom mu ànd ak délégation bu am solo boo xam ne ni sëriñ Pape Kane ubbee woon mu wane ne moom daa bokk ci kër gi waaye bokk ci gan ñi délégation bi mu àndal ak firndeel na ko. ndax sëriñ Xabibu mi nga xam ne mooy sunub xalifa moom lañ xàndal ànd ak sëriñ maam Balla moom sëñ Basiirum sëñ maam Balla ànd ak rakkam sëriñ Moustapha waaye ànd ak sëriñ Sohaybu waaye ànd sëriñ Mouhamadul Fadal moom it di rakkam di léppam waaye ànd ak mbooleem ay doomam ak i soxnaam ak jarbaatam mu mel ne bi ñu ñëw sax lu man ñetti oto def nañ ko ngir délégation kon mel na ne bis bi am na fa mu ko toll waaye ni ñu ñëw fi fekk fi ñu baax sëriñ Abdou Lahad mii nga xam ne yàlla dogal na benn lañu woon bu yàgg ba tey ñu ñëw fekk ko fi léegi rek mi ngi naan ku mën a dem ñun mënuñoo dem noonu ak yéen wane taxawaay boo xam ne am na ko ànd ko ak noonu waaye nag du ñuy sori it ñuy beral ab nuyoo sëriñ Xaboo mi nga xam ne agsi na léegi ca jotaay bi. moom it doon kilifa ci ñun waaye nag ak waa kër Serigne Ibrahima mi nga xam ne yàlla dogal na moom lañ tuddee bés bi ah, te sëriñ Cheikh Abdou mel na ne nekk ci bopp ba waaye nag waa kër Serigne Xalaaji Baara waaye nag di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne sunu baay la sunu waajur la suñu lépp nga xam ne moo ji jiitu timis des alaaji Baay Serigne Tàkku doon ko baax ku lewet ku laabiir ku bëgg Serigne Cheikhouna waaye ku bëgg barab bi mu baax lool woyof lool waaye sëriñ naa ñu yëkkati sunu kàddu gu seetlu googu nga xam ne mi ngi jóge ci sëriñ Baara di nuyu mbooleem ahlu Ngéyeen gépp waaye di ko teg ci sa loxo yaa ak sëriñ Moustapha ak mbooleem koo xam ne moom nga bokkal bis bu tedd bii nga xam ne mën naa ne na ndonu la ci yéen waaye nag mu doon ndonu loo xam ne lu ngeen bàyyi xel la waaye lu am solo loo xam ne ku ko amutit bëgg na ko te ku ko am ku ne ñeena leen ci waaye yàlla dogalit ñuy ñaan ci baaxob Serigne Touba ak guddi gu tedd gi yàlla guddal seeni fan te wéral leen bala waajur yoo yéene woon ngeen man koo àggale ni ngeen ko bëgge noonu nag munuñ motuñ ci yéen ay seere waaye nag man nañoo wax wax ju baax joo xam ne xam nañ ko ci yéen te lépp di dëgg muy mbaax ak mën a yaatal ak mën a rafetal ni sëriñ Baara amee ab cër ci kër gi yàlla dogal na noonu ngeen di amee ay cër ci suñ biir kër yi. muy gàmmu gi nga xam ne nii moom lañuy woote fii ci Badar gàmmu gi nag ki ko fi sosoon mooy alxaaji sëriñ gay moom mu nga xam ne waajur la ci ñun moo ko fi sosoon ba mu ko fay sos ba dara xëy na ñetti néeg moo fi nekkoon wala ñeent waaye li alxaaji sëriñ Gueye daan ñu wax rek man samay mbir. comme ni sëñ Touba mel rek noonu la mel amul tànku gannaaw tànku kanam rek la am loolu ku dëkk ci dëkk bi xam ngeen ne loolu wir firndeel na ko wane na ko à travers njabootam gii fi toog muy ki bopp bi sëñ naa Guèye muy rakk ci man waaye nag di xalifa alaaj Sëriñ Guèye muy jëf-jëf ju rëy ànd kook rakkam ji Moustapha Guèye ñu gis ko fii ci badar xam ne ku xamoon badar ñun ñi fi daan ñëw tout tànk yaa quelque chose comme peut-être une vingtaine ou trente ans ci gannaaw bu ñu ñëwee fii tey gis dañ xam ne xarkanu badar day soppeeku na te loolu yépp nag mooy œuvre bi nga xam ne nii immense bu ñu remarquable boo xam ne nii njabootam gii ñoo ko fi def muy sëñ naa Gueye ak sëñ Moustapha Gueye muy loo xam ne nii ñépp rafetlu nañ ko neexoon naa léegi Moustapha Gueye bi ma ñëwee bi ma bi ñu yoon teg moom ma gis Badar architecture bi ni mu changé ni Badar mel ma ne ko ah Moustapha alaaj sëñ Gueye day bu yëkkat génnaatoon ci àdduna fekk la fii doo changé toogaay ndax véritablement sagal nga dëkk bi defar nga dëkk bi taaral ngeen dëkk bi yow sa rak yow sa mag Cheikhouna Mbacké di leen gërëm nag waaye nag ni ko yàlla waxee rek al baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbihi wallazi xabusa xabusat laa yaxruju ila nakida kon loolu yàlla moo ko wax ci alxuraan meññet la rek meññet la ndax euh, ñi leen meññ ñoom muy alaaj sëriñ Gueye xamoon ngeen ne ku topp ci tànkam noonu rek nga mën a mel malaktu bi rabbi moo jilal maw ji walyam بملئ الذي أنسى أذى الفلك كالخميم mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe maa ngi leen di nuyu ak a ziyaar di jiital ci nuyoo bi sunu mag sunu kilifa sëñ Abou Mbàkke mu sëriñ Siidi mu sëñ Abou Lahat ak bokkam yi mu fi fekk yëpp sëñ Fallou monsieur Mahamadou Lamine Baara wala sëñ Fallou yi ni bokk ñaari sëñ Fallou yi ak bokk yi ñu fi fekk yëpp sëñ Cheikhouna ñu ngi lay nuyu te di ñu ngi nuyu sunu wëllëre sëriñ mustafa Guèye ak bokki Badar Guèye yëpp di teg ci seen loxo nuyoo bokk yi ak kilifa yi ak dëkkandoo yëpp ci turu njaboot Cheikh Ibrahim gi ma àndal te mooy sëriñ saalihu sëriñ murtada sëñ ahmadou yadali ak Cheikh Bamba Silla ak sëñ màggat Fall muy délégation bi jóge Touba ci ndigalu sëñ Daam Abdourahman mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Ibrahim ak Cheikh Mouhamadul Fadilu rakkam ñu ñëw représenté fi mbooleem njabootu Cheikh Ibrahim ñu ngi leen di nuyu te leen ziar Cheikh Bamba Sylla ak sëñ Maguette Fall ñu ngi jóge ba Ndar bokk ci délégation te lii rek moo leen yëkkati bu leen yàlla dimbalee dañuy delluwaat tey ji incha allah loolu nag di wone bis bi yitteel gu munu yitteel yitteel gi munu yitteel nag te jële ko ci suñu ndigalu ay kilifa lu baree tax bi nga xamee ne jàpp nañ bis bi te dara jaale ko Cheikh Ibrahim sëriñ Cheikhouna dafa ànd ak sëñ Moustapha déplacé wu ñëw ba Touba ñu ñëw waxtaan ci ak kilifa yi yëgal leen ko wax leen lañ ca jublu kilifa yi rafetlu ko lool bég ci lool gis ne itam ñu ngi ci seenu yoon ñu ngi ci seenub liggéey te muy sof fi mag ñi bàyyee woon ngir wéyal liggéey bu am solo boo xam ne man nañoo wax ne kenn deful lu ko ëpp solo damay wax ne askan wi Sëriñ Tuubaa da leen a fekk ci mbaax gu mat ak diine ju rafet ak xam-xam ak ngor waaye mu ñëw tàbbal ci ngeneen lu rëy rëy yéen ñi nga xam ne yéen la flambeau bi nekk ci seeni loxo tey jii ngeen dese liggéey bi yàlla dogal ngeen di njabootu kilifa yooyu taxawaay yi ngeen taxawee day ñun dañ koy rafetlu lool te mooy dundal li leen seeni maam bàyyee ndax kenn deful lu ko ëpp solo kenn yëngutuwul ci lu ëpp mbaax waaye nag bu ca ngëneel loolu day daal di rawati te li ngeen def te mooy taxaw ci li leen fi seeni kilifa bàyyee di ko dundal di ko sàmm muy dëkk bi muy taalibe yi muy njaboot gi muy bokk yi loolu ab liggéey féetewu ko kaw ndax liggéey bi yàlla la yàlla moo sàkk mbokk waaye moo ko dénkaanee lii sëñ Tuubaa indi nag moom kenn xamut lu mu doon waaye jàppuñ ne kenn am na lu ko ëpp fenn bay am lu ni toll sax kon nag képp ku yàlla dogal nga doon ca dara te di ca taxawee nu mu gën a rafete képp ku bëgg lu baax amee la njukkal waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi te sëñ Tuubaa boole nu ndax cër ba sëriñ bi sëdd seeni maam te yàlla rek boole woon leen ak lislaam loola seenub cëra xel du dem mukk ci jéem leen koo xañ waaye ku ko doon xalaat sax mënu ko waaye nag bu ngeen te yemoon te téye ko mën naa rafet waaye mën naa bañ a dàq bi nga xamee ne nag dangeen ngeen koy jël di ko sàmm di ci góorlu te lii lépp di wane ne ak góorgóorlu la ndax bu ngeen ko talutoon sàmm leen dëkk bi sàmmu leen taalibe yi sàmm leen bokk kon lii du mën a am ngeen ne ci di ci góorlu bay xool nu mu gën a rafete di def saa yu ngeen di amal bis bi ngeen xool kenn ci njabootu sëriñ bi njabootu sëriñ bi yaatu na am na ay doom am na ñi ki nga xam ne ñooy maam yi di ay seexam ngeen ne nañ ci jël kenn dara jaale ko bis bi ngir ñu may occasion ñi nga xam ne xamuñu woon kooku mooy kan wala dunduñu ko ndax mi ngi bëgg a yàgg rawatina ku mel Cheikh Ibrahim nga xam ne bi mu fi jógeek léegi rek juróom ñaar fukki at yi daanaka xaw na koo jege kooku ñu bari génération bi xamuñu ko maa ngi jàpp ne tey jii du ma wax ne am na fi waaye bari na fi ci baas bi ñoo xam ne mën naa am sax ca Ibrahima tur wi rek moo daan romb seeni nopp waaye mosuñ cee attentionné wu ba xam ne kii doomi sañ Tuubaa la bërëb sàngam la gënee àdduna nu way juram wu jigéen fii la bokk dund na fi ba def fi li yëg lii ba am fi njaboot jàpp naa lool ne am na ci jotaay bi wala sax mën naa ne bari na fi te lan moo indi tey euh, ñu weesu ci foofu mooy jëf ji ngeen jëf ñuy wax ne ba muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ba muy Cheikh Ibrahima Fall wala ay kemam lañ ci gis suñ bopp ñu ci lañ ci sant yàlla ci lañ koy encouragé waaye nag lu mel ni lii nga xam ne ku mel Cheikh Ibrahim xëy na yàgg na njaboot gi taxu leen bari lool taxu leen a yëngu lool ngeen mën a may occasion bu mel nii kon njariñul jataay bi ak tudde gi gën na gën naa fés tey kon loolu ñu ngi leen ci encouragé bu baax di ko rafetlu bu baax leen wax ne fii ngeen ko teg daal fii la yaakaar naa ne du yàgg ba ngeen bàyyi la ngeen jàpp ndax ñee kenn ca lam jàpp te gëm naa ne ku mu mën a doon bu jàpputi li ngeen jàpp bis dana ñëw mu bàyyi lam jàpp ñëw fekk si leen ndax fii ngeen ko teg rek kooku la baaxee sëñ Moustapha sunu wëllëre ci toolu mbaax lañ xamante ak liggéeyal lislaam xam ko muy taxaw waaye bu am solo ci diine ji ak ci xam-xam euh, ci loolu amoon nañu ay bis mu yëg ko ànd jeeg sëñ seexu naa mi ñu fasante rek loolu mooy dox suñu diggante ba léegi waaye lii nag du man lii Cheikh Ibrahima la sëñ Touba la kon daal loolu mooy mbégteem njabootu Cheikh Ibrahim ñun ñii ñoo ànd ñëw waaye buñ ko mënoon ku Cheikh Ibrahima am dana ñëw ndax bis bi tool na noonu waaye toll na noonu itam ci ñun kon ñu ngi koy rafetlu di leen ci ñaanal du ñaan mag ñi jiitu woon te yoroon liggéey bi yàlla dolli leen di leer ak ngërëm yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk ci tool bi di ci góorgóorlu itam moo xam yéen ñii na ci bopp njaboot gi la moo xam taalibe yi nga xam ne seen i maam ñoo àndoon ak seen i maam ak seeni i bàyyi tañ jàpp ci liggéey bi balaa lu suuf yàlla dimbali leen dolli leen kàttan ak tawféex ak ndam ba lu ngeen bëgg te yéene ko ci kër gi ak dëkk bi ak liggéeyub sëriñ bi ngeen amee ci lu seen jort ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu bu baax di wax ne sëñ Bamba Sylla mi ñu àndal mbokk la ndax doomi sëñ Daam Sylla la di di di mbokk ci askanu Mbàkke ak askanu Saate maa ngi tooñ sëñ Moustapha bi ma fi jiitu see ma ne ko téyel ma sama gan gi bu baax ndax doomi soxna la waaye terewul nag muy ku amuk taalibe euh, di liggéeyal sëñ tubaab bu baax di jëwriñ topp moom it ci tànki way juram looloo tax bi ñu ñëwee yëg la ni bis bi Cheikh Ibrahima lañ ko jagleel te sàkku ci koo xam ne mën na leen cee dolli luñ mën a jëriñoo ci bis bi wax na ne loolu dong leen ci soxla sama xel daal di daj ko ma laaj ndigal sëriñ bi mu jox ma ko ma wax ko ko mu daa di joxe kàddoom te nam ko waxe woon la ko defee moom itam ku mat a ñaanal la jàmbaar la sëñ Maguette Fall mais mu àndal itam bokk ci kër gi féete ndar di yëngu ci wàllu xaside yi di ko jàmbaare moom itam ñoom it ñu ngi leen di seereel seenu cant ak seen gërëm di wax ne daal liggéey baa ngi noonu sëriñ bi moom day dem ku ku dugg mu yóbbaale la ku ne ci kanamam mu jaar ci sa kaw jàll kon nag nun nan dugg te toogee ni ñu war a toogee rek ndax ñu yegg fañ bëgg a yegg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw jërëjëf. muy